salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum benn affaire rek laa leen di wax Kunkande woote na jouru tam xarit nee na dina xar géej gi mais gaa yi ngi naan mën na koo xar ak mënu koo xar mais ngir yàlla bu xaree géej gi bu ko kenn ñaawlu bu xaree géej gi bu ko kenn ñaawlu ku ko ñaawlu maay dal sa kaw rawatina suñu mbokku lebu yi bu xaree géej gi ba ngeen ñàkk jën yi lépp seey doon suuf gars yi di jàll def promenade bu leen jooy man li ma gën a manqué mooy ceebu jën dina manqué rek aka maa bëgg ceebu jën waaye bu am suul am bëjëg ah mooy jën jënu sëdd yi yu rëy yi loolu lépp bu ko Koungheul jëlee xar géej gi mu dugg ci biir doon suuf bu xaree géej gi ku ko ñaawlu may dal sa kaw gaa yaa ngi koy weddi mais bu xaree géej gi sénégalais bu ko ñaawlu dinaa dal ci kaw ñi nga xamante si nag jotoon nañ jël seen xaalis avance ko ci gaal yi pour war a dugg dem Espagne wala Amérique wala France mën na noo retiré waat seen xaalis jàpp suuru tam xarit bu nu xaree géej gi ñu def promenade dox nànk daalu naan suñuy Coca-Cola